الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد mbokk jullit yi gannaaw ba ñu sante suñu boroom yow jullit ñu ngi lay dénk foo mën a nekk del sant sa boroom subhanahu wa taala mu sàmmal la lam la jox ci xéewal dolli la loo xam ne nii amoo ko woon ñu ngi seede ne moom dong yow ñu koy jaam sunu yenent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon na ab jaamam waaye nekkoon ab yenentam ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla bu leen dee mukk lu dul fekk yéen a ngi ko jébbalul suñ xutba tey ñu ngi jëm ci mbokk julit lan mooy yàq pas-pasu gëm yàlla nawaqidu kalimatu tawxid benn julit bu xam diine du réere ne lii di wéetal yàlla subhanahu wa taala mooy la gën a màgg ci lu doomu aadama bi di am ci kaw suuf loolu rek a taxoon yàlla yónni yeneen tam loolu rek a taxoon yàlla wàccee téeréen loolu la binde ajjana la binde sawara te mooy ñu wéetal yàlla ci jaamu ko wéetal ko ci ay jëfam xam ne moom rek a ko man wéetal ko ci ay turam ak melokaanam sunu borom mu ne bind ma nit ñi ak jinne ñi lu dul ngir ñu jaamu ma soxlaalu ma leen wërsëg man maa leen di wërsëgal ay yow mbokk julit xamal ne laa ilaha illallah bi ngay wax mënoo xëy suba ba ngoon lu dul wax nga ko ay yooni yooni yoon léegi lañu ko bilaal jazahullahu xayran di fàttali ca mooy ashhadu an laa ilaha illallah loolee mbokk wax bi nga koy wax ab pas-pas la waaye xamal ne pas-pas it day fecceeku ngi mel ne waa ji nga xam ne jàngal nañ ko ne bala ngaa julli da ngay jàpp na am xam ne ni ñuy jàppee dem na jàpp-jàpp bu rafet waaye jóg jëm ca julli ga avant muy kabbar ngelaw génn ci moom dañ naan ko njàpp mi moom baaxatul am saw génn ci moom dañ naan ko njàpp mi baaxatul naka noonu waa ji nga xam ne bu xëyee ba baa muy tëdd laa ilaha illallah denc du denc làmmiñam waaye gannaaw loolu mi ngi jëf loo xam ne da koy toj dañ naan ko demal nga gëmaat ndax wax ji ngay wax amul njëriñ comme aji jàppkat bi maadaama def na lu yàq njàpp mi njàpp moom moom yàqu na loolu moo tax ba mbokk julit fokk doomu aadama bi xam lan mooy yàq ay pas-pas borom xam-xam yi jazaahumullahu xayran bari nañ di tënk ya ci gën a feeñ ci nit ñi donte ne am na yeneen waaye am na ci fukk yi moom bari na lu mu yàq pas-pasu ñu jëkk ak ñu mujj yëpp bi ci jëkk mooy sa borom yàlla mi nga xam ne moo la moom nga am keneen koy jaamu di ko booleeg moom na doon loolu ay jinne la na doon loolu ay biddiw la na doon loolee ay xamba la wala même ay bammel la yooyu yépp da ngay gis ne sunu borom yàlla nee na képp koo xam ne nii day loo mën a def ci kaw suuf yàlla mu ne mën naa koo bale ba mu des bokkaale njaalookat bi naan ko te sàngara bi même bu dee ne tuubul sunu borom yàlla mën na ko jaarale fu ko neex gannaaw ba baal ko tàbbal ko aljanna amma waa ji nga xam ne daf day bokkaale ak boromam borom bi yàlla nee na ku mel nii dama araamal ci moom aljana kon lan mooy fexeem sunu borom nee na sawara may wàcc waayam ca du am kenn koo xam ne moo ko fay dimbali ay yow mbokk julit kon ngalawaay moytul kem salal kattan sa borom yàlla boobu di am kenn koo koy dendaleen kenn koo xam ne jàpp nga ne la yàlla man mën na ko wala la yàlla xam moom xam na ko ba tey boo nekkoon fu gën a sori ci kaw suuf it boo jaaxle mën nga ne yaa diw mu daal di ñëw xetti li la ndax mi ngi dégg li yàlla dégg mi ngi gis li yàlla gis te am na kattanu borom bi subhanahu wa taala mbokk loolu da ngay gis ci gën a màgg ci lu doomu aadama di def ci mbon ci kaw suuf waaye bokk na ci loolu itamit lu lënt ci bopp yenn ci nit ñi mooy ñun kat ay jaami yàlla ñoom la ñuy woo na doon ñooñu ay yonente la wala yooyu ay malaaka lañu su ko defee ñu ne yàlla subhanahu wa taala day ñun ñii ngeen ñu tere mais ñii ay jaami yàlla lañu ñun jaamuwuñu guyi jaamuwuñu daqaar yi bu ñu woo jibril la ñuy woo mikail la ñuy woo man sëñ diw laay woo te ku ne xam ngeen kooku daraja yi mu am ci yàlla sunu borom yàlla la ñuy tontu loolu ca suuratu yunus mu ne nit ñi day ñi ngi jaamu gannaaw yàlla loo xam ne du leen jëriñ du leen lor boo leen laajee ñu ne haulaai shifaauna inda allah ñu ne ñii ñoo dox suñ digganteeg yàlla ñii ñoo ñu ramm ca yàlla sunu borom yàlla mu ne ndax da ngeen di xamal yàlla lu mu xamul ci kaw asamaan yeeg suuf yàlla nee na xamul ci kaw asamaan suuf kenn ku mu doxale digganteem ak i jaamam loolu yàlla mu ne xamu ko ndax yéen xamal yàlla lu yàlla xamul ci kaw asamaan yeeg suuf su ko defee mbokk da ngay gis loolee am ay lënt yu ca yóbbu doomu aadama yi bokk na ca lënt bi gën a siiw li sunu borom di wax naan ay yéen julit ñi ragal leen yàlla te ngeen sàkku la nga xam ne mooy lu leen di jokkali ci moom yaa ayuha alladina amanu ittaqu llaha wabtagu ilayhi alwasila wa jahidu fi sabilihi laallakum tuflixuun ñu ne yàlla moo ne nañu wut wasila kon man omar ibnu alxataab radiallahu anhu mooy sama wasila mooy sama yaakaaru àdduna mooy sama yaakaaru alaxira am ko jóg ne déedéet man imaamu malik rahimahullah mooy sama wasila loolee mbokk ñu jàpp ne wasila boobu kon mooy nit koy jël di ko doxale sa diggante ak sa boroom ba lu bari loo doon sàkku ci yàlla ci moom ngay yem booy waat aw turam ngay waate boo fakkastanoo moom ngay woo mooy sa yaakaar àdduna mooy sa yaakaar alaxira mbokk mboole mi boromi xam-xam yi doon tafsir téerab yàlla bi kenn firi wu ci loolu wasila ndax loolu sahaaba yi xamuñu ko woon ak taabiina xamuñu ko woon mooy ñu tapp ca ñoom lañ firee wasila boobu mooy moyen jëf ji ngay jaar ci jaamu yàlla ba jege sa borom comme num ñëwee ci xadisul qudsi bu siiw sunu yeneen ci salallahu alayhi wa sallam nee na seen borom yàlla day nee na sama jaam jegewu ma lenn loo xam ne gën naa koo bëgg la nga xam ne dama koo farataal ci moom gannaaw boobu dañ dima jege ci ay nawafil ba mu bëgg ko kon wasila boobu suñu borom di wax moom mooy nga daal di dem jege ko ci ay jëf waaye itamit woo ko ci turam yu màgg yi ak melokaanam yi kawe ya ngiree yàlla fajal la sa soxlay adduna ak soxlay alaxira allahuma lu dul am na lu ca yàlla maye ca loolu yonent bi saxalool ko diine yépp saxal ko mooy nit koo xam ne day dund comme yow ni nga mën a ñëw na ko lebal ma dépense mu jël xaalis jox la naka noonu it mën ngaa taxaw nga ne ko ay diw ñaanal ma yàlla nangam ci nangam wala nga daal di ko wax mu jéggulul la sa borom loolu moo tax ba xatta kenn ci ñun bu faatoo da ngay gis ne farata la bu yàlla gàll suñu loos bu fardul kifaaya fokk julit ñi war nañoo taxaw jéggulul ko yàlla subhanahu wa taala waaye mbokk loolu mooy kan mooy waa ji dund daal di teew amma tey muudu njaay mi nekk dakar yow nga nekk italie ak jaaxle daal di la yaaw muudu njaay comme ni ma la ko waxe sànq jàpp nga ne kooku déggam nga muy déggug yàlla waaye jàpp nga ne kattanam nga muy kattanug yàlla loolee mbokk ab lënt bu rëy la bokk na ci lëntu ñaareel bi mooy ñoom dañoo jàpp ne yàlla kat ku màgg la màgg goo xam ne man ak ni ma doyee dee nan laay jóge rek dem ci yàlla te wallahi loolu benn góor wax na ma ko ay yéen a bëri solo nan ngay jóge rek dem direct ci yàlla ca mooy kon fokk yàlla moo président de la république ñoo yem bala ngaa dem ci moom da ngay jaar ci protocole loola tax ñu am jaamu yàlla bu ñu am ci moom yaakaar di xëcc di ko ci moom di ñaan ci ay turam di ñaan ci ay darajaam loolee mbokk da ngay gis ne moom la yéefir yu jëkk yi doon wax biñ leen di tere xërëm yi ñu ne hey ñun ñoo leen gën a xam ne xërëm yi du yàlla ah lu tax ngeen leen di jaamu nag ñu ne wama nabuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa ñun lii moom moo ñuy ah jegeel sunu borom subhanahu wa taala ca loolu mbokk da ngay gis ne sax na ci diine yu bari ba hatta diine nasaraan yi maa ngi ci gis benn évêque ki nga xam ne mooy Mouhamad al Arifi dem seeti woon ko seen église di ko laaj naan ko waaw yéen statue yi pour lan la mu ne ko non ñun xam nañu ne duñu yàlla waaye nag mooy attiré xelu nit ñi buñ ñëwee seen xel bañ a génn église bi bu ñu bàyyee xel saint yi seen xel dellu ci yàlla gis ngeen mbokk loolu itamit lu bëri ci doomu aadama yi tey noonu la ñu mel mooy jàpp nañ ne bala ñoo jege yàlla dañoo dem ba ci xabru sëñ diw su ko defee nag soo su boobaa moom am nga jokkale gu la jokkale ak sa borom mbokk loolu nekk benn njumte bu rëy boo xam ne nii lu bëri ci doomu aadama yi ñu ngi ciy tàbbi ñetteelu mbir bi mbokk julit bokk na ci képp koo xam ne dafa jàpp ne am na beneen diine bu valable ci kaw suuf bu dul diine lislaam loolee mbokk boo ko gëmee da lay génn ci lislaam sunu borom yàlla nee nañu ñi nga xam ne dañoo weddi ci ahlul kitaab ne dañu ñu ay juif lañu wala ay nasaraan lañu ak képp koo xam ne day bokkaale boroomam borom bi nee na ñoomu day ñi ngi tabb ci sawara dañu fay sax ba faw te ñooñu ñooy yées ci mbindaafon yi kon ngalla waay bul dem mukk ba gëm ne diine yi nasaraan diine la abadan diine yi yawut diine la abadan diine la woon waaye yàlla folli na ko soo laajee mag ñi yow xale yi ana ñaata di bii de banque ñoo jaaroon Sénégal yoo xam ne balaa buloon na ay jamono waaye tey boo ci yoroon un milliard it nit ñi dañ lay reetaan rek ndax amuñu la benn njëriñ naka noonu diine yu jëkkee noonu la mel dañuy gëm ne benn diine moo valable ci kaw suuf muy la nga xam ne muy diine lislaam ci loolu itamit la ñuy waxee mbokk julit képp koo xam ne jàpp nga ne am na ko mën a indi beneen doxalin ci kaw suuf boo xamee ne moo gën a jub doxalinu yonent bi salallahu alayhi wa sallam ku mel noonu da ngay gis ne dañ lay boole ca la nga xam ne mooy yéeféer yi ca loolu itamit da ngay gis lu bari ci doomu aadama yi léeg-léeg ñu gis koo xam ne day safaanoo ak diine complètement su ko defee bokk na lay ba nga xam ne moom la ñuy lay mooy Moussa alayhi salaam mi ngi àndoon ak xadir xadir doon def yoo xam ne comprendre ñu ko comme ñu ni sëñ bi buñ ko gisee muy naan sàngara su ñun néew ci sëñ bi day njaaloo su ñun néew ci sëñ bi sëñ bi day def li ah moom am na ci lay ñu daal di utal diine ji ay borom yi sañ-sañ ut ci diine ji ñoo xam ne dañ leen a baddil ay ñoom fu leen neex jaar yàlla du leen toppe ci dara wallahi mbokk loolu képp koo xam ne gëm nga ne am nga ko da lay génn ci lislaam képp koo xam ne gëm na ne am na ku ko am ci diine ji da koy génn lislaam mbokk yeneen ci daal islam moo gën na tedd ci yàlla baddilu ko yàlla subhanahu wa taala da ko doon wax ba ma bokkaale si jëf wadd da doon wax maa leen gën a ragal yàlla te it maa leen gën a xam yàlla naka noonu aboubacar kenn baddilu ko omar kenn baddilu ko naka ñu dem ba ay junni at après ñu ne suñ càmm la sekk moom am na sañ-sañ ci diina ji lu ko neex def wala am na ay ah ndigal yu mën a jox keneen ba kookee itamit lu ko neex def mbokk loolu day génn nit ki ci lislaam mu bokk ci natt bu rëy bu ñu yàlla nattoo mooy bi nga xamee ne ni tubaab yi ñëw nañ coloniser nañu des siècles ba ñuy dem ñu bàyyi fi seeni ndaw ya nga xam ne ñoo ko formé mboolem atte yi yàlla wàcce woon ci alquran ñu war caa atte woo tubaab boobu changé na ko ci ay loi loi yoo xam ne loi yéeféer la di ay constitution yoo xam ne bàyyil nañ ñu ko fi di ay code yoo xam ne bàyyil nañu ko fi mu safaanoo lool ak suñu diine sori lool ak suñu diine mbokk loolu képp ku gëm ne lu baax la da lay génne ci lislaam képp ku gëm ne doomu aadama bi mën naa dem njaaloo fekk mas naa sëy ba pare ñu ne luy payam nañ ko tëj quelques ans bàyyi ko ki nga xam ne rey na fukki nit luy payam nañ ko tëj quelques ans bàyyi ko ki nga xam ne dafa sàcc luy payam nañ ko tëj quelques ans bàyyi ko nga jàpp ne loolu atte bu maandu la loolu da lay génne ci lislaam lu bari ci intellectuel yi dañu jàpp xaawa atte l'islam d'accord loolu valable loon ne mais loolu au septième siècle la ñun au vingt-et-unième siècle nañ lay mën a attewoo loolu affaire yi barbarie la mbokk loolu da lay génne ci l'islam yow jàpp nga ne yàlla xamul woon ne vingt-et-unième siècle dana am yàlla xamul woon ne civilisation Sénégal lu àll wala bu Allemagne dana am mbokk suñu borom dara réeru ko moo bind àdduna moo xam li ci nekk mu yónni yeneen yàlla bi ila kaafatan li noos daal di ko jox ab téeréem ne ku atte woowul téere bi yéeféer la képp ku atte woowul téere bi tonkat la ku atte woowul téere bi faasiq la bal suñu borom mu ne fala wa rabbika la yuminuun maa ngi lay waatal sa borom du ñu gëm xatta yuxaqimuuka fi ma shajara baynahum lu dul sa diina ji la ñuy jël di ko attewoo ci jafe-jafe yi ñuy am seen diggante yàlla waxul ci ñu attewoo ko pour jaamu ma de déedéet ñu koy attewoo ci jafe-jafe yi am seen diggante loolee wàllu sëy la loolee wàllu miraas la loolee wàllu ay kot la yooyu yépp dañoo waroon a dellu ci alquran ak sunna ak boromi xam-xam yi nañ ko déggee julit ñi attewoo ci loolu am na képp ku gëm safaan ba xamal ne kooku yéefér la ku gëm nañ ne atte yi baaxul santul yàlla atte yi kéefér la waaye quand même yow attewoo atteb l'islam xamal na yaa ngi ci bakkaar bu grave bu dangereux mi ngi noonu su ko defee mbokk julit bokk na ci juróomeel bi mooy képp koo xam ne dafa bañ lenn lu l'islam digle képp koo xam ne nii xam na ne yàlla digle muuraay ci téeréem bi ba pare muuraay googa mu bañ ko loolee mbokk da koy génne ci l'islam bépp acte buñ ne tey ku sàcc nañ dagg loxoom ñu ne ah non loolu c'est de la barbarie loolu da lay génne ci l'islam sunu borom yàlla bi muy wax yéefari dane zalika bi annahum karihu ma anzala allah fa ahbata amaluhum ñoom day dañoo bañ sip la yàlla atte yàlla mab lépp seeni jëf mbokk la nga xam ne mooy juróom benneel bi mooy képp koo xam ne day sabote diine ak façon sabote bi mu mën a doon même bu doon da ngay fo sunu yonente alayhi salaam nafiq yi doon wax lu ñaaw ci lislaam ba mu leen woowee lu tax ñuy wax li ñu naa ñu mu yàlla yónni ñun dañuy kaf rek dañuy fo rek sunu borom daa wàcc aaya ne waaw boo leen laajee ñu ne dañuy fo léegi bu ngeen bëggee fo wala ngeen théâtre wala ay maye aw leen leneen lu ngeen jëfandikoo lu dul yàlla ak yonentam ak aayaam sunu borom mu ne bu leen joxe benn lay ay yéefér ngeen tey jeex na laa taatasiru qad kafartum weddi ngeen gannaaw ba ngeen gëmee loolu tax nga la waay yow julit bi wax xoolal li ngay wax yow julit bi yàlla nattoo muslim bu bon boobu di théâtre wala joué ay film xoolal li ngay wax xoolal bépp kàddu boo yëkkati di ko jëmale ci lislaam na doon loolee ci téeréb yàlla bala ci imaam yàlla na doon loolee ci jëf yàlla bari na kàddu goy wax mu génne la ci lislaam la nga xam ne mooy juróom ja ñaareel bu mbokk julit mooy lii nga xam ne mooy ak njabar mbokk njabarkat yi tasaaroo nañu lool waaye da nga xam ne képp ku dem jàngi njabar njabar boobu nga xam ne mën na dofloo nit njabar boobu nga xam ne mën na reyloo nit mën na bëggaloo nit lu mu bëggul mën na bañloo nit lu mu bañoon loolu lépp bi iznillahi taala sunu borom yàlla subhanahu wa taala nee na day bi yahud yi jiñ naan suleymaan day da doon njabar sunu borom mu ne déedéet suleymaan musula weddi chiyaatiina yo ñooy weddi ay sunu borom lënkale njabar ak weddi te mu ne ña nga xam ne ñoom la yàlla nattoo ñu koy jàngale muy haarut ak marut amul kenn kuy ñëw ci ñoom di jàng ci ñoom njabar lu dul dañ naan ko ñun kat yàlla ñu def fitna bul jël lii boo ko jëlee rek weddi nga looloo tax ba mbokk képp koo xam ne jàng nag njabar bi njabar loolee ak kéeféer la ka dem ci moom jàpp ne lii dara nekku ci loolee ak kéeféer la di mbir yoo xam ne nii war nañ fexe bàyyi ci xel bu baax amma juróom ñetteel bi mbokk julit mooy farandoo ak yéeféer yi ànd ak ñoom di xeex julit ñi ànd di secret di secret julit ñi di leen ko delloo bëgg seeni jaamu yàlla bëgg la nga xam ne mooy seeni feet yooyu yépp da ngay gis ne lépp lu ca yegg sa biir xol loolee da lay génn ci biir lislaam ammaa nag boo gëmee ne la ñu nekk dara daaxu ci boo gëmee ne ñoom diinay neen la ñu yor waaye yaa ngi ànd ci zahir di ànd ak ñoom du tey yaa ngi nekk ci bakkaar boo xam ne bakkaar bu grave la waaye boo gëmee ne la ñuy feetoo wala gëm na da nga leen war a jàppale contre julit ñi loolee mbokk da lay génn ci lislaam am naa juróom ñeenteel bi yéen mbokk yi tedd yi mooy képp koo xam ne nii dafa jàpp ne moom kat man mii day mën naa génn ci lislaam mën naa sori lislaam ci ay façon sexe yoo xam ne nii mën naa koo jaamoo sama borom subhanahu wa taala loolee mbokk da ngay gis ne sunu borom yàlla du ko may ci loolu abadan te moo di ne képp ko jàpp ne yow mën ngaa tëralal doomu aadama yi yoon boo xam ne yoon bii kat ñoom dañ koy jël di ko jaamoo yàlla am nga sañ-sañ ci loolu ku mel noonu yaa ngi def sa bopp ak bokkaalikat moom la borom bi di wax naan am lahum shurakaau shara'u lahum min addiini ma lam yazan bihi llah ndax nit ñi dañoo am ay bokkaale yoo xam ne ñoo leen di tëralal ci diine yàlla bi lu yàlla joxewul ndigal loolee kon mbokk ñu bàyyi xel ci ne diine ji yàlla rek ko moom moom dong nga am droit nu wax nii lañ may jaamoo hatta sunu yonente alayhi salatu wasalaam sunu borom nee na wa ma ala rasuli illa albala yonente bi jottali rek mooy la ko war amma la nga xamee ne mbokk mooy fukkeel bi mooy li dal li ëpp ci nit yi tey mooy dummoo yi diine yàlla bi faale woo ko kii mi ngi turu muhammad mi ngi turu fatima waaye fa la yem yoonam nekkul ci diine nu ñuy jullee xamul nu ñuy sangoo xamul alxuraan xawma ci dara mi ngi noonu toppatoowuloo ko loolee mbokk da ngay gis ne sunu borom yàlla mi ngi wax ne ana ko gën a mën a tooñ ci ki nga xam ne wàcc naa samay aay ci moom ba pare mu dummooyu ko fàlliwu ko sunu borom yàlla subhanahu wa taala ne boo leen di woo jëme ci njubit duñu jub ci njub googu abadan lii mbokk kon lim ñuy jàngal moo di ne wareef la ci bépp doomu aadama mu xam ne yàlla da koo bind pour mu jaamu ko kon kay war naa laaj nan la yàlla bëgg ma jaamoo ko ko nga jéem lan ca xam nga def ko la cay tere nga bàyyi ko am naa jàpp ne amoo jotug wax waxul islam comme la ko bëri occidentaux yi di waxe mooy amatuñu jot waxu diine daal di gàddaay église ya gàddaay la nga xamee ne nii mooy seen doxalin yépp loolee mbokk képp koo xam ne nii yaa ngi koy melawoo donte ne taxawoo benn yoon ne ne dinaa yàlla xamal ne jëf jooju nga jëf jëf la joo xam ne ji fi kéefér la mbokk fukki mbire ngi yoo xam ne borom xam-xam yi day nee nañ ku koy jëfee da lay delloo ci ak kéefër léegi nag la nga xamee ne nii mooy fukk yooyu képp koo xam ne nii da caa tabbi duñu tëm mukk ne ab yéeféer la dañ naan def na jëfi yéeféer waaye duñ ne mukk ab yéeféer la kañ lay mën a wax ne ab yéeféer la mooy fukk daan ko woo daa di koy leeralal ne ko kat yow lii ngay def day ak kéeféer la jox ko ca tegtal yu leer nañ ñi suñ ko ca joxee tegtal yu leer nañ ñi te da ko iqamatul xujja ba pare mu lank fekkiirlu su boobaa la ku nekk di doog a am droit ci ne diw yéeféer la loolu moo tax ba xatta yi ma wax bari na ñoo xam ña nga koy dund mën na am ñu mel noonu nga la waay nañ leen jegalaayi leen biir bari na ñoo xam mën na am moom la ñuy deeyaale waaye deeyaale gañ ko deeyaale it du tax ñu ne ñoom kat ay yéeféer lañu bu dee amuñu benn preuve ci ne kenn musul taxaw ak ñoom leeralal leen taxawal leen lay ga ci seen kaw waaye almuhim yow mi nga xam ne jot nga koo dégg ngal la waaye fas ko sa xol daw ko sa gën jaamag gi daw su ko defee nga boole it di ñaan yàlla subhanahu wa taala sàmmal la nga xam ne mooy sa ngëm yal na yàlla subhanahu wa taala sàmmal ñu suñu ngëm yal nañu yàlla musal ci lépp lu ñu koy yàqal yal nañu yàlla xamal suñu diine wërsëgal ñu dund ko yal na yàlla may ñu ñu jaamu ko bañ koo bokkaale ak dara yal na yàlla subhanahu wa taala rafetal suñu mucc yal na yàlla boole ñu ca ñan ñami tànn tabbalin aljanna yal na yàlla wàcce jàmm suñu réew li nga xam ne moom la ñuy séntu yal na yàlla def ko bardan wa salaama yal na ci yàlla musal benn fitna boo xam ne da cay juddoo yal na yàlla def jàmm ci mboolem réew yi jullit ya géree di takk yal na yàlla musal ñu ci fitna yi bépp aji ay fitna na doon loolee jinne la aw nit la yal na yàlla defal ñu àjjane firdaws suñu wàccuwaay allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin